asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku internet ak mbooleem mbokku internet yi nga xam ni yéen a ñuy topp ci chaîne bu am solo bii di Serigne Djily TV di ci ànd ak sang bi ci mbooleem dars yiñ fi jàllale ak jataay yi nga xam ni ñi ngi koy baaxee mbooleem ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi ak ñi topp sunuy vidéo fu ñu mën a nekk biir réew mi bitim réew ñu ngi leen di nuyu di dikkaat nag ak yéen ci beneen jataay boo xam ni sëriñ bi tey dana waxtaan ci tomb bu am solo boo xam ne nii tomb bu mat a bàyyi xel la mat a taxaw seetlu la mat a topp teewlu ko ngir li muy gàllankoor dafa bari waaye li muy def ci nit dafa bari limu nuru yit dafa bari waaye ngir xam ak tàqanle ak ràññeetle ko faw nga topp jataay bi déglu ko waaye déglu yeneen yi nga xam ni incha allah sëriñ bi dana ko leeral ba nga xam ni lii ñuy bëgg a waxtaanee limu mu li nga xamante ni dañoo nuróo nu ñuy def ci nit ki te bokkuñu kon nag ñuy ñaan ngeen wéy di abonné ci seen chaîne bii di Serigne Djily TV ngir di topp jataay yi nga xam ne moo fi bàyyi ko kon tey nag damay bàyyi sëriñ bi nuyoo su ko defee ñu door a dëkk nag ci tomb bi ñu fas yéene waxtaane ak yéen sëriñ bi maa ngi lay nuyu namoon nañ la lool salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moussa ñu ngi lay fay. di la ziara ci lu màgg li ñu génn muy julli gi di ziara mbokk yi ñuy déglu ñépp di leen baalu àq bu baax di leen bal ak ndax wax dafa jafe rawatina di wax nag ci xam-xam alaa kulli haalin faaw mu am rëq-rëq donte lu baax nga ci jublu di ñaan suñ boroom may ñu fekk ko ay at yu bare bare gën jaar fi ci fekkin bi jaahil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokki internet bi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi ak ci tiktok bi di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf Serigne Djily mbokk mi ngi noonu kon wéy leen di ñu topp rek ci mbooleem plateforme yi nga xam ni euh, suñuy vidéo ma nga fay jàll muy Facebook Instagram ba ci li nga xam ne moo di TikTok fépp foo xamante ni ni ña ngi fay yaatal li nga xam ne moo di waxtaan wi rek kon ñu ngi ñaan ngeen jottali ko di ko partager tey wéy di abonné sëñ bi nag tey dama dafa ne ñoo waxtaan ci tomb bi nga xam ne moo di cat wolof gën koo xamee ci cat waaye nag ñu gën koo xam ci alaynu nu walisaan te mooy bët bu ay ak làmmiñ bu aay eh, akit ndax yaxal nañ ko ci alquran dikk na ci am déet ak sunna waaye it yéeme gi nga xam ni cat yéeme na ko ci bu nga xamante ni eh, jàpp ne na nit ki jàpp na nit ki ak nit ki naka la mën a tëbee rek catu nit loolu incha allah bëgg naa dana bokk ci suñu jataay ak cat nan lay jeexintale ci koo xamante ni nii gaar na la kon tomb bu njëkk bi sëñ jiile al aynu wal lisaanu bët bu aay ak làmmiñ bu aay cat mooy lañ sëñ jiile alhamdulilahi rabbil alamin maanaam lépp loo gis rek dafa am cat bu ne cat nag mooy li nga xam ne day def gaaf bu ne jaasi cat wala ñawkat mhm. mooy def gaaf buñ ne paaka ñawkat wala cat mooy def gaaf buñ ne puso kazalika mhm. buñ ne ay dég sax kazalika buñ ne làmmiñ tamit kazalika cat li mooy def gaaf moo tax loolu nga wax lu am solo la ndax ñëw na ci alxuraan dama naan la waaw ñëw na ci alxuraan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko dama naan la waaw wax na ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko catu ndax saxaaba yi daanañ ko dund dama naan la waaw daanañ ko dund ndax ña leen jiitu woon ci lu yàgg daanañ ko dund dama naan la waaw daanañ ko dund ndax yonent bi ci boppam ma wax ne afatul ayni xaqun te loolu dafa ñëw fekk ko fi Mhm. yonent bi dafa ñëw fekk fi cat ak làmmiñ moo tax mu ne aafatul ayni xaqun mu wax ne walaw kaana shay'un saabaqul qadri la sabaqathu al ayn mu am feneen fu mu wax ne al aynu wal lisaan xaqun cat ak bët cat eh, catal bët ak catal làmmiñ lu am la kon loolu lu sax la ci alquran ba nettali boobu ngay dégg ci alquran yàlla di ko nettali ci làmmiñu eh, yaqub alayhi salaam bi mu yabalee doomam yi fukki doomam yi ak benn misra mm-hmm. ci yenn ci yàlla yusuf aaya boobu mm-hmm. imaamu tabari wax na ne dafa bañoon ñu doom yi ndax zaatu jamalin wa haybatin nañ mm-hmm. ndax amoon taar bu yéeme ak daraja mu bañoon ñu dugg benn bunt bu ko ñu ànd àndandoo ci mbooloo nga xam ne ñëpp dañ leen di moo tax aaya bu di wax ne yaa bani laa tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa jamono yooyu misra ñeent bunt la mu ne day leen ku ne na jaar fii bañ imaamu tabari ci boo demee ca tafsiram ba dalay wax ne dafa bañoon ñu catu leen aaya ba li lépp ci wéeru gi mu wéeru ci yàlla terewut mi ngi mi ngi moytandiku moytandiku wattandiku terewut mi ngi moytandiku moytandiku wattandiku ndax xam ne na dogal ci yàlla lay bàyyi ko waaye nag dafa digle ak wattandiku kon cat lu am la te gaaf gu doy waar la te gaaf gu naqare mucc la danañ ci dikk ci kanam incha allah. jërëjëf sëñ Jili mbok yi mu ngi noonu kon lu mat a bàyyi xel la waaye sen Jili catal bët ak catal làmmiñ euh, nan lañ leen mën a ràññetle nga xamante ni dana doon lu wér loo xam ne nii kiy déglu tey te jàng alquran te ñaare euh, yu bari sax xëy na taxul bu ko gëmee it du ko gëm ndax wax ji jamono ji ni mu bare maam lan moo koy yaxal may ko yaqin ci wér gi nga xamante ne ni ni nga ko leeralee léegi ba mu mën a xam ne alquran ak na leeral na ni lii lu am la waaye lii saafaraam mënees na koo jëlee ci alquranul karim waaw man jàpp naa ne képp koo xam ne jàng nga alxuraan jàng aslaf ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñemewoo weddi am na nag ñoo xam ne ñu ngi tadifal xadis euh, euh, yi nga xam ne wàcc na waaye xadis yi ci wàcc muttafaqun alayhi yi yu wër-wër la euh, ndax dafa am ñu ne loolu nan la mën a nekk nit ki cat rek wax rek nit ki am ci gàllankoor wala xool rek nit ki am ci gàllankoor loolu nan la mën a nekkee fekk boobu ñoom dañuy jëfandikoo seenum xel te yàlla dafa bind yatt yoo xam ne ku ci nekk dafa la dafa laa amal limite mhm. jëmmi doomu aadama mhm. dafa am limite dafa am tënkuwaay fi ne fi nga toog rek yow si jëmm ji loolu la mën a occupé mhm. noonu la xelum doomu aadama am fu mu yem xelum doomu aadama am na ci loo xam ne xam-xamam yëggu fa ndax maxluuq la ruux doomu aadama tamit mooy gën a yaatu xel xam-xam dégg sax dégg dégg dëgg dëgg dégg bu xóot duñ ko jëlee ci xel waaye ci rawxaan ya lañ koy jëlee boo gisee ñu ne wax yu ci ruux moo koy moo koy atterrir mooy sirrul xalb waaye xelum doomu aadama mënu koo dékku mhm. kon ñi nga xam ne dañuy seen xam-xam dafa tënku ci xel rek dafa dafa limité wu fekk boobu boo saytoo jëmmi doomu aadama yàlla da cee def ay mbóot yu bari mhm. da gis ñii seen tempérament nit ku nekk bokkoog sa moroom tempérament ba ci basamaat yi nga xam ne mooy nekk ci baaraami doomu aadama yi ku ci nekk nuróo la woo ko ba ci temp euh, basamaat yi nga xam ne moo ne ci bët basamaat mooy. Euh, empreinte mhm. mooy empreinte ba ci empreinte yi nga xam ne moo ne ci bët sax ku ci nekk nuruloo ko nurule woo ko ak sa ba ci misaaj yi ci doomu aadama yi ba ci seen tempérament tabaa yi mhm. ba ci rawaxaani yaat yi nga xam moom na yàlla bindeeg doomu aadama yoo xam ne doomu xam na ko ak loo xam ne doomu aadama xamu ko li mhm. ma lay joxe ci message rek fi ne yow nit bu meree boo ko xoolee ci kanamam rek da nga koy xam mm-hmm. nit tamit su su bëggee boo ko xoolee ci kanamam rek da koy xam mm-hmm. fi ne nit bu jooyee bu jooyee nii dend yow jooyee rek da ngay gis yërmande ji li muy def ci yow mm-hmm. te pourtant loolu sa bët moo jàkkaarloo ak moom rek effet boobu am taasir la si ne ma la ko mën a misaale taasir la fi mu ne nit yow bu bu jàkkaarloo woon ak yow saaga la da ngay gis maanaam ni ngay soppi ko am naqar est-ce que dañuy wax ne yow jëmmi saaga gi jëmmi saaga gi saaga gi moo nekk jëmm ñëw dal sa kaw wala déedéet wax la rek wax mhm. waaye dafa def taasir ci yow taasir boobu nag dafa am ay rawxaan am ay yëg-yëg yoo xam ne mooy jóge ci waa ji ñëw ci yow ci na ma la ko mel na misaal nga dégg ko mhm. masalan yow buñ la joxoon kaas nit ki bopp bi ni metti nga tiim ko di mocc ba na sedd na moo ne dafa am baat yooyu wax mën naa nekk alxuraan mën naa nekk leneen ce que jëm baat yooyu moo nekk jëm mu ñaw seral kii bi déedéet sirru bi ne ci biir hmm? mm-hmm. ak arawxaaniyaat ak la làmboo ci biir mm-hmm. mooy def effet mm-hmm. noonu nag la yàlla bind noonu ci bët mu am ko mu bind ko ci làmmiñ mu am ko na am na ci nit ñoo xam ne lu wax rek loolu day yàqu mu def jeexit am na ci ñi ñoo xam ne luñ xool xool bu yàq jublu ci yàqu day yàqu ne boo amee tuuti ak seetlu sax boo yoree kaas ni bëggoon naan wala bëgg lekk nii mm-hmm. am na ci ñoo xam ne boo jàkkaarloo ak ñoom buñ la xoolee rek da ngay gis mu këpp wala daal dina am dana am lu ci sikk uh-huh. dana am lu ci sik dana am mm-hmm. lu ci sik moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na wa iza raa iza raa ahadukum min nafsihi aw maalihi aw min axiihi maa yujibuhu fal yubaarik al aynu xaqun maanaam ku gis ci sa bopp loo xam ne neex na la wala mm-hmm. yéem na la mm-hmm. wala gis ci sa mbokk moo xam ne neex na la yéem na la mm-hmm. ñaanal ko maam barke ndax kat bët lu am la maanaam boo gisee sa mbokk moom lu rafet bala nga koo catu waxal macha allah barakallahu fiik yal na la yàlla barkeelal loolu mën naa téye gàllankooru cat bi ko war a dal mm-hmm. macha allah barakallahu fiik mm-hmm. jàng nga ba tàyyi ci xadis euh, xadis mooy ñu koy nettali bari ci wàllu cat mm-hmm. xadis la ahnaf boobu nga xam ne moroomam saxaaba la gis yaramam rafet mu catu ko bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj lan moo xew ñu ne ah kii moo ko wax nangam mu xool ko mu ne ah kii kat du ko catu di joxe lii na bu ngeen gisatee ci seen mbokk lu leen soob. Mhm. leen ko ndax da ngeen a bëgg rey sax ndax da ngeen a bëgg rey seen mbokk ak seen ak seen làmmiñ ak bët la wax nanga nga jàpp jàppal mu jàpp jox ko saxaabi mu sangu bi mu sangu fi saasi la loola wàcc ci moom. Eh, loolu lu sax la ci sunna mm-hmm. waaye noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane woo fii ñeema woo wax kenn na ko jàppal da ngaa catu kii boobaa gendarmerie la la yóbbu wala police waaye nag am na yeneen tegtal yoo xam ne moo koy wecc mm-hmm. yeneen tegtal yoo xam ne moo koy wecc te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na ko mm-hmm. ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam makka bi ko saxaaba yi daan catu cat am na net imaam Tabari mu wax ne ba in yakaadu lazina kafaru boobu dafa amoon ci ñu Bani Asad xeet la ci Makka ci amoon ñoo xam ne ñu mën a ñu mën a catu lañ waaw ñoo xam ne cat rek kuñ catu kuñ catu nga nga nga am gàllankoor ñoo xam ne dañ ko daan boole yonent bi pour ñu catu yonent bi waaw ndax def nañ pexe yu nekk sottiwul hmm. ba amoon nañ ci koo xam ne ku yéeme la ci wàllu cat kooku moom nga xam ne su bëggee yàq dara li ma lay wax nii boo demee ci téere yi du samay natt boo demee ci téere yi da nga ko fi fekk mhm. kooku bu masaana bëgg a yàq dara dana toog ñaari fan yoo xam ne du lekk bu ko defee lu lu ko romb rek bu la catoo rek fi saasi rek lay daal di dal fi saasi rek lay daal di hm, ku faaru màkk yi dem neexal ko bëgg mu ñëw catu yonent bi pour yonent bi faatu am na ñuy wax ne ci la aay boobu wàcc wa in yakaadu lazina kafaru la yazluquunaka bi absaarihim lamma samiu zikr wa yaquluun innahu la majnun wa ma huwa ila zikrun lil aalamin waaw waaje bi mu ñëwee li mu wax yonent bi daf ne xad kaana xawmuka yaxsibuunaka sayida wa iqaalu annaka sayidu mayuunu waaw suñ borom daal di wàcc aay boobu fegal ko catawaa jooju moo tax gis nga ci barkeb aaya boobu bari na ñuy liggéey ci wàllu cat mm-hmm. dañ cee boole laaya jooju dañ cee boole aaya boobu mooy wa in yaakaaru moom siiw na ci loolu yaakaar na mm-hmm. jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu kan muy saraabu leer boo xam ne buy yaxal buy wéral buy dëggal li nga xam ne moo di e, catu bët ak catu làmmiñ ni lu am la lu sunna saxal la lu alquran saxal la waaye nag yéen ñi bëgg a jokkoo ak Serigne Djily mën ngeen a woo ci 77 743 30 92 77 743 30 92 ma baamtu leen ko 77 743 30 92 képp ku ko ci woo rek incha allah da ko jot fu mu mën a nekk rek moom ngay jokkool loo ko ca laaj rek incha allah mu mën la caa dimbali laa biir la ca lu ko ci suñ borom jagleel sëñ bi nag dañuy jàll ci fi nga xam ni moom nit nan la mën a xoolee nit rek catu ko ci yéeme goo xam ne nii cat yéeme na ko maanaam nga xam ni nit xool nit ki rek catu ko wala nit wax nit ki rek ko waaw mooy de ma doon nett léegi rek mbóot li nga xam ne suñu borom def na ko ci nit loolu ñu tudde bët bu aayu mhm. te ñu bari weddi ko mhm. am la mhm. maanaam loolu ko ko weddi rek mën ngaa weddi wilaaya ndax mbóot la loo xam ne yàlla koy def ci nit say bëti kese mënoo jàkkaarloog loolu xam ko bu dee làmmiñ kasaalika fii ne am na sax ñoo xam ne luñ dégg rek loolu day yàqu am na ñoo xam ne seen dégg luñ dégg rek man loolu mën naa yàqu dégg mën naa yàqu moo tax ñoo lay wax ne say mbir doo koy nëbb baraana koo xam ne buñ xamee ay mbiram fa mu bëgg a fa mu bëgg a egg du fa egg. waaw mooy la xadis istaayinu ala qadaa il xawaij bil kitmaan. bil kitmaan mu ko li nga xadis bi. du mm-hmm. waaw. am na ñu ne xadis in in du xadis am na ñu ne du xadis waxi xakim la am na ñoo xam ne wax sayda ali loolu lañ ci jublu am na ñoo xam ne luñ dégg mu yàqu waaw xam ne luñ dégg mu yàqu waaye loolu baatin la boo xam ne comme ni ma la ko leeral léegi ci làmmiñ lay nekk wala mu nekk ci bët dañuy ëppante doole nag dañuy ëppante doole maanaam ci nit ñi waaw loolu dañuy ëppante doole ba loolu ñuy tudde sax seytaan seytaane ko tuddee del mi loolu ñoom i bu yàlla def ci ñoom la mm-hmm. waaw waaye catal bët moom ak catal làmmiñ nit sax dana catu boppam far benn yoon. nit moom ah, day catu boppam. ci ban ah, lu yéen xanaa déggu xadis bi yonent bi wax ne wa iza raa ko min nafsihi mm-hmm. ci sa bopp la wax. xaaruun. Mm-hmm. xaaruun bokk na ci li ko yàqal dafa catu boppam. bi ko yonent yàlla Muusa waxe ahsin kama ahsana allahu ilayk del rafetal comme ni yàlla rafetal jox la alal ji mhm. ci rafetal ah wala tansa nasibaka min ad-dunya mhm. lan la wax innama utituhu ala ilmin ilmi indi waaw maanaam cat moom mooy jur mbeewte <laughs> maanaam nit ki bala nga bew da nga ñëkk a sa bopp ba pare nga bew soog a ñëw mu ne man maa ko li yoonu yàlla nekku ci sama xam-xam sama sama la ne ma utiitu ala ilmin indi waaw daal di catu boppam catu boppam catu sa bopp nag dinaa leen ci may léegi loo xam ne soo ko defee mën na koo dindi mooy sam njàppit nga sangoo ko nga sangoo ko ne bari na ñoo xam ne xam nga nit dana dana sànce wala yor oto bu rafet la oto bi daal di wane boppam wane wu moom fu mu amee rek cat moo ko jiitu. fo la fu amee rek xamal ne cat a ko jiitu. na nit day catu boppam su ko defee nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax mhm. moo tax yàlla wax ne wala tuzakku anfusakum mhm. yàlla bëggut koy wane wu boppam. waaw baraana ñoo xam ne ñu yaakaar nit nee na catu fekk boobu ñooy catu seen bopp. bu mhm. ko defee loolu lu mel noonu soo bëggee di ci mucc man nga sa njàpp sa njàppiit mooy jàpp nguur foo ko dëkkaliku nga sangoo ko loolu bokk na ci liy dindi nit ki su catu boppam am jàppin nga sangoo ko. jërëjëf euh, sëriñ bi xam mbokk yi fàttali leen yéen ñi ñu topp ci seen bi di Serigne Djily TV mm, ñu ngi ànd ak Serigne Djily Abdou ci jataay tey bu ñu waxtaanee lépp lu aju ci al ayn wal lisaan te mooy catal bët ak catal làmmeñ ak it jeexit yi nga xam ni da koy def ci doomu aadama incha allah mooy tomb bi ñuy jeexalee fàttali leen numéro téléphone bi 77 la 743 30 92 77 743 30 92 bariwaa na ku dem ci nit ñu naan ko seetloo ko ba noppi ñu naan la dañ laa liggéey ak dañ laa def li ak dañ laa def lee amaana cat képp la waaye sëriñ bi ñu jeexalee tomb bi nga xam ne mooy asaar yi nga xam ne da koy def te mooy jeexit yi nga xam ne cat dana ko def ci jëmmi doomu aadama muy catal bët wala catal làmmiñ ñaare bariwaana ci ban anam lay gën di ràññetle ko nga xam ni dana wuute yeneen yi nga xam ne bu nit buñ ko catawul ñu liggéey ko nit buñ ko catawul muy rab waaw cat yan jeexit lay faral di gën a def ci nit. waaw xam nga cat moom li ci yonent bi wax rek mu ne gileem danañ ko catu bañ laaj ko bañ ray waaw li mu bëgg a jàngale foofu mooy nit mën nañ ko catu sax ba mu waaw si jëm mën nañ laa catu ba yow loo yor mu yàqu am na ci ñoo xam ne bu ñu yoree oto nii masalan oto bu bees wala yooyu fii saasi rek dañ koy catu ma daal def sob mm-hmm. waaw fii dañ koy daal di catu mu def sob mu def gàllank mu am sob ba ci sa jëmm sax mën nañ laa catu nga am ci gàllankoor nga def accident am laago xeeti laago yu bari yi ngay gis. cata koy def mm-hmm. loolu nag nit ki baña bàyyi xelam ci boppam parce que ku ñëpp tifli faaw nga tooy am na ñoo xam ne seen seen seen seen seen làmmiñ li yàq du bari waaye am na ci ñoo xam ne buñ bu ñu waxee rek faaw ñu yàq dara faaw ñu wax yàq dara fekk nag mm-hmm. moo tax nag loolu yow li la ciy musal ngay di baña bàyyi sa bopp mm-hmm. ndax mën nañ la gàllankoor yow ci sa wàllu yaram bu fekkoon ne da nga am palace bu baax mën nañ la wàcc fi saasi wala boog nga am gàllankoor boo xam ne dootoo mën a liggéey wala nga am gàllankoor boo xam ne loo yor mu yàqu su dee oto loo yor mu yàqu bu dee portable loo yor mu yàqu bu dee alal xaalis loo yor mu yàqu te doo xam foo koy dugal doo xam lu koy yàq mm-hmm. soxna su baax sax mën nga ko yor ño catu na jëkkër ju baax sax mën nga mën nga ko yor ñu catu la bitig bu baax sax mën nga ko yor ñu catu la dootu dox dooto jaay dara dox ba ci yàgg mu taxaw fekk boobu benn waaye romb foofu rek koo xam ne boroom cat la. ñoo mhm. si waa ji li jaay day na day mel ni balu fital oh. day mel ni balu fital buñ la dóor am na ci yenn cat yoo xam ne yow sa jëmm yaram sax danga koy yëg. am na ci nit ñoo bu buñ la catoo yow si jëmm yaram day mel ne. da nga mhm. koy yëg yow da nga koy yëg da nga am yëg-yëg boo ci amee xel tuuti. waaw tey jii kon fi jamono toll gannaaw euh, gravité bi nga xam ne cat am na ko mu catat bët ak catat làmmiñ ndax nit ki tey bu seetsee koo xam ne nii bula la seetsee tey ci misaal mën nga leen a dimbali ci loo xam ni lu leen di musal ci cat la ndax bari waa na ñoo xam ne xëy na seen àlluwa soriwul xëy na lu ci bari li nga wax xëy na xamuñu ko waaye bëgg nañoo mucc. waaye xamuñu yoon wu ñuy aw ndax tey am na lool ku koy jëfandikoo da nga mën a mucc ci cat ak fu mu mën a jugee ak fu mu la mën a bettee. waaw fàgguteef yooyu am na cat moom mag ñi dañuy wax ne moo karaw koy sax ci nit ñooyam da ngay def waxtu saxee rek nga wat mm-hmm. doonati sangut sangut eh, daaw sangutu cat léegi jeex na waaw ndax fii ne boo sangoog saabu boo toogee ñaar fa ñetti fan mën ngaa tilimal ndax nit ñi moom faaw bu set ñuy wax waaw noonu la mel mbirum cat noonu la mel am na nag ay ndomb yu ñuy defar yoo xam ne moom bu fekkee takkatu téere nga boo ko takkee moom maanaam belend genre belend lay doon moom bu fekkee mi ngi sa yaram mi genre belend lay doon waaw fekk mi ngi ndomb lay doon <laughs> ndomb gooy wala ñu defal la ko téere parce que da ci am loo xam ne takk ko man am ci loo xam ne maanaam takk ko man am am ci loo xam ne sangu mm-hmm. bu dee looy dindi sa yaram sangu moo ci gën a gaaw bu dee looy dindi sa yaram mm-hmm. moom sangoo ci man yaakaar naa sax am na tegtal bu ma ci may woon boo xam ne mm-hmm. duma ci ñëwaat mi ngi ci vidéo yi ku ko soxla rek boobu mu manga ca waaye yooyu dafa mat di bàyyi xel ndax liggéey nit jàpp ko yombul damay wax pour liggéey nit jàpp ko am na ci ñoo xam ne liggéey du leen jàpp parce que seen seen rawxaan moo am doole waaye cat moom maanaam nit dëcc ci yombut mm-hmm. waaw xanaa bët bu set nga ci bàyyi xel moom combat boo xam ne bët bu set la mm-hmm. waaw moom loolu am na kaaraanga yoo xam ne soo ko takee mm-hmm. am na ci tamit loo xam ne dañ koy liggéey ci wàllu béy ndax boo boo gisee béy nit ñi di ko kii ci rab yi moo ci ëpp cat ci maanaam ci ci bàyyima yi béy moo ci ëpp cat mm. bañ ne sax fi ne yow boo ko géntee béy coow la même bu fekkee alal alal ji am coow la gis nga làmmiñ moom noonu mu ñuule loolu lañ tuddee sibi dafay am ci nit ñi sibi day am ci nit ñi loolu bind la boo xam da koy jàng nag nit moom bu taxawee rek da xam ndax kii bariwul ci nit ñi mais sibi loolu lañ tuddee sibi loolu ci cat yi nga koy xame waaw fi mu ne sibi nitu sibi liggéey du ko jàpp waaye nag bu xasee ba am gàllankoor Mhm. boo ko ñaanalee bu gàllankoor boobu teggoo da nga am juróom benn weer yoo xam ne say mbir day taxaw yow mi ko ñaanal ba loolu tegg ko nitu sibi ñaar nitu sibi tamit lum lum lum lu mu wax rek jubla ca yàqu lool day yàqu catal seen cat comme làmmiñ yu bay lay mel waaw loolu yàlla koy def yàlla koy def ci doomu aadama yàlla dafa bari ay kéemtaan yu mu def ci nit waaw te yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan jàng di ko xam mhm. waaw mag ñi boo boo boo taxawee rek daanaka lu bari dañ koy xam ci yow boo doxee lu bari dañ koy xam ci yow léegi nag xam-xam boobu dafa commencé réer ndax nit ñi gës nangu ñoo sonn ci xam-xam sonn ci xam-xam waaw. sëriñ bi xanaa ñu ngi ci catal jataay bi fàttali nit ñi rek képp ku la soxla euh, nu mu mën a def ba jokkoo ak yow ak it euh, ngir nga mën leen a dimbali. waaw moom de numéro téléphone yi mooy bi nga wax léegi rek 77 743 30 92 moom mi ngi ci YouTube bi TikTok bi it boo duggee ci TikTok bi ba app ba appuyé chaîne YouTube bi rek da lay yóbbu ci chaîne YouTube bi direct mm-hmm. tey tamit euh, xam-xam yiñ ci maye di ko joxe yooyu xam-xam yu am solo la yoo xam ne xalaatuñ rek di ko joxe mën naa ne yu ñuy jëfandikoo la waaye xam-xam xamle lañ wax mm-hmm. waaw laysal ilmu ma xufida xam-xam du du looy denc mm-hmm. xañ na sax doo joxe lépp waaye nag am na ci loo xam ne mën nga ko bokk ak nit ñi ñu xam ko mm-hmm. li nga xam ne mënta ñàkk ci ñoom moo tax ñu leen di may ay tegtal yoo xam ne yoo am solo la te it yuñ yuñ càmbar la ba mu wér loolu moom na ci seen xel dal maanaam fu ñuy joxe lu wérul moom fii bokk ci wa loolu moom na ci seen xel dal bu baax di jégalu bu baax nag ci kàddu yi bu fekke njuumte am na ci loolu gàttuk alluwe la rek waaye lu baax dong lañ ci jublu di leen jox jataay ci yeneen yeneen fan yi di ñëw incha allah ci beneen tomb wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk mi ngi noonu tey tomb boobu lañ dikkoon te mooy lépp lu aju ci catal bët ak catal làmmiñ sëriñ bi leeral na ci lu ama ama am am solo tey ñuy ñaan ngeen teewlu ko bu baax a baax a baax a baax ngir mën gee xam ak it mën cee jariñu waaye ngeen da koy partager ngir di laabire mbokk mi nga xam ne dana ca jot ci vidéo bi ngir moom it mën caa jariñu nga am cap yool yow mi ko partager vidéo bi kon ñu ngi leen di dig beneen jataay fàttali leen numéro téléphone bi 77 la 743 30 92 77 743 30 92 kon nag ñu ngi leen di tàggoo foofu tàggoo bu du tàqalikoo di leen dig beneen jataay incha allah ci yeneen tomb yu ñu war a leeral ànd kook sëriñ bi di ñaan ngeen wéy di abonné tey partagé jërë ngeen jëf ba beneen